Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! waa Caaroy maa ngi leen di nuyu. waaw. waa Caaroy kontaan naa si yéen trop. waaw. demoon naa Grand Yoff. waaw. wax naa leen bu ngeen ma falee. waaw. naa leen lu bëri. waa Caaroy bu ngeen ma falee. hôpital bi hôpital bi dañ koy changé. waa bu ngeen ma falee. waaye koy indi dama koy indi fii ci caaro yi aéroport dina ñëw ci fii ci ma falee caaro yi bu ngeen caaro yi kenn du gis suuf lépp laay xaroo waa caaro yi bu ngeen ma falee mais dañoo sonn di dem armeer yi fële koy indi waat mu jege si nit ñi dañoo sonn waa caaro yi bu ma falee ndox jeex na waa Thiaré nit yi dañoo sonn si ndox yi ngeen ma falee prison yi dam koy yàq lépp laay dégagé lépp bingo aca bingo bingo bingo président bingo président bingo président bingo